si nañ ci euh, fas yéene cee dalal Seydina Omar Ba ñu lay nuyu kilifa gi naka suba si ñu fas yéene ko doo rek Walf Quotidien lam ñu xëyee tey waaw yéen i kaay gii di Walf xëyee amal i kaay gi ne neexul ba ne waa leneen tamit loo xam yéen kaay ngir war fi ko tëjee xëy na ko fesal te mooy waa ji ñu ne ab la ko daal ab l'enquête la ko yéen ab corps la maanaam xam ne dañ ko sulle fële ci diwaanu Kaolack ba noppi jafal ko noonu la ko yéen kaay gi fesale euh, procureur nag ñaaw na jëf ji jàpp na un acte barbare la ba tax mu sàkku daal ñu ubbi ci ab l'enquête Euh, ñi nekk ci ginnaaw ñaaw tefi gi ñu jàpp leen yoon noonu la ko yéen gii di la quotidien xëy fësal geneen enquête yéen gii di l'enquête ne ab góor moo génn àdduna fële ci diwaanu Kaolack moom waa ji nag euh, jël nañ mu dellu soit fee moo tax mu dellu soit euh, ñu la ko ay di koy ba noppi jafal ko noonu la ko dellusiwaat ci ki ñu ne euh, moom moo ñàkk bakkanam fële ca euh, Kaolack te ñu denc ko fële ci armée Léona yi mhm. gars yi jël kon daal di koy euh, sulli jafal ko yaayam nee na Cheikh Fall lay wuyoo am na loolu lu ko métti jamono ji tax procureur daal auto saisir saako daal ngir mbir ubbi ci ab l'enquête noonu la ko yéen a kaay gii di la turbine xëyee fesal yéen a kaay geneen source a yéen a a ñëw sol ay dàllam dañu xamle kan moo di Cheikh Fall noonu la ko yéen a kaay nee nañ dafa génn àdduna ñu jëloon ko daal di ko yóbbu fële ci diwaan Touba ngir denc ko fa waa Touba gàntal ko ci la ko ay mbokkam jël daal di koy dellu soit ci Kaolack yóbbu ko daal denc ko fa ma jël ba noppi daal di koy jafal noonu la ko yéene kaay gii di source a xëyee fësale yéene kaay geneen le mandat le mandat jox kàddu gi Mame Mbaye ci mbiru ñaar moo ko ci teel euh, mooy fexe daal ba la nga xam ne carrière ci wàllu politique mën ko préserver noonu la ko yéene gi kii di la mandat xëy Fesal Abdoulaye. yéen a kaay geneen yor yor bi Ngagne yi nga xam ne ni ñoom ñëpp ay patriote lañu te seen projet bi nga xam ne lañu ah, moom lañu deltu ginnaaw ñu la ko ñu koy war ko ci opposition bi ngir ñu boole joolo ngir ñu boole ah, ngir ñu gën a boole joxante loxo mm-hmm. jàmmaloog noonu la ko yéen kaay gi yor yor xëy université yéen a kaay gii di 24 heures yéen a gii di 24 heures dafa xëy dalal soxna Mimi Touré ci laaj ak tontu gi dox ci digganteem ak suñu naataango yi moom sax Aminata Touré ma ngi indi ay leer di wax di wax lan moo tax mu bëgg doon candidat ci élection présidentielle yi ñëw noonu la ko yéen gii di 24 heures xëy fës yéen a kaay geneen élection hmm. présidentielle 2024 yi di ñëw boo moyul dana bari lool ay nit ñoo xam Euh, kaddu yi nag ko yëngal mooy professeur Pascal Oudiane enseignant chercheur la nekk fële ci ICAR ak UGB moom dafa jàpp gouvernement bu Sénégal yoon wi nga xam ne jël na ko ngir écarter yenn candidats yi loolu tax na teel jamono ji askan kenn si ñoom nga ko yéen a kaay nekk ak dund mhm. noonu lu yitteel Boubacar Camara mi njiital PCS sa jënko tabax yëkkati nay kàddaam daal xam ne ne est-ce ñu waxtaan jëm a élection présidentielle yi naka lañ élection mënta am ci réew mi te fekk Ousmane Sonko du ci bokk élection mënta am ci réew mi te ñu jël ay militants ay responsables yàlla daal leen te ci kaso bi noonu la ko yéen a kaay gii di l'évidence xëy bi di l'info place et eh, eh, place Faidherbe léegi ñu ngi ko duppee place kii place euh,

Euh, Aliou Ndoye moo def lu ni mel président Macky Sall yi te nay kàddu kon daal di rafetlu taxawaayu kii di Aliou Ndoye euh, Abdoulaye. donc euh, yéen kaay gii di stade ak. suñu lamb stade kaay dafa xëyee dellusiwaat ci cérémonie Ballon d'Or 2023 ñu ngi koy amal fële ca Paris la France. bu 19 heures 45 jotee lay doon yéen gi bu ñu deful ndànk moo koy gàdduwaat mhm. te bu ko gàddoo nag bi mooy doon juróom-ñetteelu ballon d'or boo xam ne gàddu ko ci carrière noonu la ko yéen gi di stade xëy fësale suñu lam lam ñëw dikkee open press Ama ñu ngi ko jàpp ni ci talaata mhm. a ngi nii bëriwul Modou